leen di ziar bu baax a baax di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla def jàmm ci daraja yi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen wax ne leen euh, déwé na ci leen di baalu ñëpp àkk te di baal ñëpp àkk di am mbégte ak contentement di àndandoo ak yéen ci seen émission bi ñu leen indil eh, ci biir koor gi mooy ndogu Cheikh tey nag eh, dama seet si eh, sama yaay macha allah taalibe Cheikh bi di suñu xarit muy ajaratu Dial Mbaye ajaratu Dial Mbaye bu monsieur Ale Mbaye ajaratu Dial Mbaye bu Sidi El Hadji Malick waaye ajaratu Dial Mbaye bu xalifa Ababacar si tey moom la seet si fii ci Maris fas yéene waxtaan ak moom ci koor gi dama koy bàyyi rek mu daal di nuyoo maman nuyu naa la. ah salaamaaleykum maa ngi lay fay bàjjen. jaxate maa ngi lay fay di la nuyu di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi salaahu salaam di déwénati ñëpp di balu àq ñëpp yal na yàlla boole jéggal ñun ñëpp ci barke Muhammad salaahu salaam. wa sallam macha allah maman ñu daal lay seet si fii tey ah. ndogu bi neex na lekk nañ ba sur man sax dama damay ragal mujjee fër waaye li ma ci jaaxal mooy mbayeen bi ma fi fekk. daa jël lekk yëpp rek daal koy sàcc nëbb ko di xaar ma ñibbi mu daal koy lekk nga yaakaar loolu jaadu na. ah, ah dama de da ngay waaru moom. Ah? waaye xam nga de yow da ngaa ñëw fekk fu ko sant mbay. fekk fu sant mbaay. Mhm. ñëw fekk fu ñu sant sàmb. Mhm. indaale ko sant mbay. loolu tax ndogu li doy na waar tey. moo tax jël nañ sàcc nañ ndogu bi yëpp. dara koy yóbbu acca <laughs> moo ngi noonu maman ñu bëggoon a xam nan ngay dundee koor gi waaw koor gi de euh, ni ñu koy dunde mooy ni ñu ko daan dunde rek bi nekkee xale mhm. euh, xam nga boo juddoo ci diine juddu dend ak zawiya mhm. ñuy noddu jàkk ji nga juddu ci ay xadara mhm. juddu ci ay alwa da ngay daal di xam diine. ni ma ko daan dundee ci Tivaouane bi ma nekkee xale. Mhm. noonu laa ko dundee Dakar bi ma fi sëy sëy mhm. waaw dund gi daal moom mooy sellal ko ba mu sell rek. Mhm. li ci yàlla wax lépp nag. ñu jéem ko. donte le mënuñu ko waaye nañ ko jéem rek. waaw waaye ni luñ ci def rek. Mhm. na ko yàlla nangu. amiin amiin luñ ci def te jubul. Mhm. yal na ko yàlla jéggal. amiin amiin barke Sidina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam sama yaay ji dafa mel ne nag dangaa ñeme koor ndax yaa ngi naan léegi say biir wax ba ñu nekkee xale. waaw lañ ko tàmm ba ni ñu màggee. parce que lépp rek dañ naan <laughs> ca xale la. Ah, ah, ah, mhm. xam nga eh, yar dafa baax. lu la yaree rek loolu ngay yaroo. ñun bi ñu amee sept ans la ñuy woor xoolal sama sët yi ñëppay woor. macha am na benn sama sët boo xam sax dama ko yërëm Mouhamed Mouhamed mhm. Fall dama ko yërëm mhm. parce que dafa lànk ne day woor mhm. ñoom Adja Dial kër gi xale yépp tubaarkàlla macha allah ñëppay woor du cin du tàkk ci kër gi euh, bëccëg loolu amul parce que xamuñu ko woon man bi ma amee sept ans laa commencé woor bi nga amee sept ans ne damaa fi mu ne nii sama géer ñi dañ mën a Dial Mbaye dangaa woor man leen damaa woor kay ah, waaw te ñoom itam dañuy woor xam nga boo nee damaa jabeet du woor ils gèrent dama am ulcère du ma woor. Mhm. dama feebar du ma woor ah jéemal rek. Mhm. xale yi dama dina may ree ba de yaay yaay sonnoo man leen bu mën a xamee rek naa dog. Mhm. su ma xamee rek naa dog daa dog. waaye woor moom. wax dëgg yàlla man ah yàlla bu ma def dara yàlla bu def dara kenn. amiin amiin waaye weer wi yëpp dama koy ñaan yàlla woor ko. macha allah waaw boobu ba léegi nag wax dëgg yàlla. Mm-hmm. li nga wax nekk lu am solo loolu sept ans nga commencé di woor loolu yombul ndax maman des fois da ngay dugg ca kër gis xale ya xaj bi yëpp du ñu woor te seen yaay duñu leen wax dara. Mm-hmm. loolu loolu bàjjen loolu du yoon. Mm-hmm. diine moom ngay jëkk a jàng. boo amee yar am diine am ngor da ngay xàmmee àdduna. xam li war a xew nga di ko def. Mm-hmm. waaye euh, nit am na ñoo xam ne seen ñoom seen ndey ak seen baay am nañu diine. Mm-hmm. waaye boo amee diine da ngay yar sa doom ci diine. Mm-hmm. ñu ne noonu la ñuy ñaan yàlla. dëgg la xamuñu nag yaru nañu ci diine wala déet waaye ñun daal ñoo ngi koy ñaan yàlla suma borom. mu defal nu ko def ko ci sunu njaboot ak njabootu bépp jullit. mu bëgg sa doom jaar ci yoon. siraatal mustaqim mhm. ci barke Seydina Muhammad macha allah maman koor gi nag su ñëwee ñu ci bari dañuy woor commencement bi mhm. waaye dañoo seetlu ñu demee rek ba korite di waaj a ñëw mhm. ah wala mu des ay 10 jours ay cinq jours nga gis ku nekk di kër yee damaa feebar <laughs> munu ma woor damay miir des fois sax nga te sekk benn jigéen ne ko lan moo tax woroo mu ne man tàmm ma ko xaw ma ko xam loolu de doom loolu du baaxul de ah euh, woor ba koor gi xóot nga ni damaa feebar. daal di arrêté te feebaroo. <laughs> ñi sant mbay nag la gën a bari ci ñoom. <laughs> ak ñi sant mbuub <laughs> ñi sant mbuub ñoom ak ñi sant sàmb. Uh-huh. ñoom bari na ci ñoom lool. Uh-huh. waaye lépp rek. Uh-huh. mi ngi ci jaamu yàlla. dëgg la na ko jàng. miin ko. Mhm. xam ko ba boo ko defee du la déranger. macha allah ci miin gi rek lay doon. li bu tàmm la waaw tàmm rek la tàmm rek la jaxate tàmm rek la. Uh-huh. tàmm rek la. macha allah mm. maman euh, ñu dégg tamit euh, mm. artistes yu bari dañu naan ñoom su koor ñëwee mooy seen vacances est-ce que yow bokk nga ci loolu koor day tax doo liggéey wala doo dem fenn koor gi dangay ngay vacances daal comme ñooñu wala. waaw xam nga vacances moom. Mm-hmm. Euh, vacances ñu ngi ko xamee ci xale yi jàng école. Euh, koor it euh, vacances ji mooy waa pourquoi ngay sellal weeru koor am weeru diggi am tëbaski am tamxarit lépp di weeru yàlla. nga tànn ci koor ni dama koy sellal ba du ñu jouer duñ def dara. loo deful ci koor di ko bañ war nga koo bañ ca korite ga. war koo bañ ci weer yëpp. moo tax man ah, mm, koor moom bu jibee moom damay wéer sama lépp comme xale li ñu wax rek. wéera sa lépp jublu ci yàlla euh, jublu nga ci yàlla avant koor après koor koor lépp di yàlla kese boo ko tàmmee du la déranger. yow koor gi daal loo def benn activité. waaw xanaa ah, activité pour parce que loolu sax wut a nekk xam loolu mas nañ ma ko def bés benn ay ay gars yi ñëw ci gàmmu Tiwaawan. Mhm. ñu ne ma dañ may engagé fay ma un mhm. jour gàmmu Tiwaawan. Mhm. man leen deema ko gënal. boobu gàmm gi ñëw ko boobu weeru weeru digg bi sax feeñagul. Uh-huh. ñu dikk fee fa un million ni ma dañoo bëgg nga joué lu béréb sàngam. Uh-huh. li may wax nii. Uh-huh. ñi ma ko defloo ñu ngi ko ñu ngi may gis. waaye man leen dara jëralu. xalaatoo ko du ma joué weeru gàmm te waawoon. mar te boobu laay door a woy nag ñëpp ni ma nii. ndeysaan ñi naan ma yow da ngay delloo xaalis bi man leen itam bàyyi leen yàlla ma gënal xaalis bi. waaye am naa fi lu ko bàjjen boobu yàgg na. di boobu yàgg na boobu daanaka laa génnee Faaba Deme la 90 91 12 13 lañ ma ko def. yii loolu yàgg na. yàgg la woon. kon yow Tiwaawoon nga commencé. waaye du Tiwaawoon de. Mhm. sama kër géej waaye Are Jaal Mbaay. ah Are Jaal Mbaay fa lañ ma fekk. booba ñëwaguma sax fii. Ah. waaw ñu ni ma danoo bëgg nga wayal nu gàmmu Tiwaawoon tëggal nu ko. Mhm. ci benn dëkk. après euh, bu min wee rek ñu tas ko. Mhm. man leen duma ko def. Daniel Bourdieu sax du ma burdu bi sax du ma ci joué. burdu bi bu weeru gàmmu xasee tëru. Uh-huh. ma tëgg benn spectacle. macha allah dama ko sóoraale woon. Uh-huh. ci bi may génne Fabade Wele 90. ci RTS bii. Uh-huh. booba Ndioro Ndiaye moo nekk premier ministre. ñu di ko énigré muy super ndaje El Hadj Mansour Mbaye jël ma ca ma ànd ko yeneen artistes. ñu def ko dama ko sóoraale nag. dama sóoraale woon loolu. macha allah mais koor gi eh, man dama naan eh, du vacance parce que eh, mën nañoo xëy suba rek daal lay woone la dañuy takk munaas. waaw wala dañuy takk ah, bàjjen loolu bokkul. te géer ñi dañuy soxla géwël yi. bàjjen de loolu. Mhm. loolu takk la. Mhm. yàlla ceet la gën a fonk sax nag. dëgg la takk même ngénte. Mhm. yàlla la. man damay dem ngénte koor. damay dem xew takk. koor damay mais xew. ak ngénte ak euh, spectacle. Mm-hmm. ñiy paas du dugg di la fay. Mm-hmm. du benn. Mm-hmm. lii dañ laa woo nga ñëw. yow rek yaa ñëw indi woo xalam indi woo sabar indi woo dara. dëgg la maman euh, lan mooy sa xalaat ci xale yi li ñu xewal léegi xaw ma tendance la wala. Mm. koor gi su jub see rek ñu daal di dem ñoom ne dañuy tëj saison bi su koor gi di see ay deux jours trois ah. jours ñu ne ñoom dañuy tëj saison. Ah, waaw waaw loolu ah loolu xale yoo ko xewal daal di commencé ci mbalax mi rek. daal di la ñuy mbalax balaa koor. am na ñu ñu ànd ak ñuy eh, ñuy bëgganteel. <laughs> Ah. dem ndax dañ naan eh, koor gi weeru koor gi. <laughs> di gisantee ak seen waay loolu moo tax yàlla ñi tëj saison bi sa <laughs> ce que d'accord nga ci loolu. ñooñu nag eh, bàjjen. Uh-huh. ñooñu dañoo ñeme rek ndax ko xamul di nga fekk suba wala déet. ndeysaan. wala yenn nga tey xam nga di nga fanaan wala déet. Uh-huh. dañuy ay xale rek. Uh-huh. xale jëfi xale lay def. waaye jëfi xale am na xale yoo xam ne mag lañu nekk mag. waaw. waaye boo nee da ngay dem ànd ak ki nga war a àndal. Mm-hmm. koor gi suba la koor. Mm-hmm. dama war a def li may def lépp ci lu neexul yàlla. Mm-hmm. da nga xam est-ce que da nga yeew. dëgg la waaw loolu moo tax nag. wóorul uh-huh. dafa wóorul bàjjen. ndeysaan mu nekk lu jar a sóoraale loolu c'est uh-huh. pas wóor. mu nekk lu jar a sóoraale. yàlla yeex yàlla bàyyi ñu fi. amiin ci barke Seydina Mouhamad maman. Uh, fu ñu la mosoon gis rek uh, tamit uh, dañuy daal di gis maman. ma mama xaar mbay daal di gis mama Kiné Lam mhm. daal di gis ñoom acaawele ak ñu macha allah ah suñu leen dee lim ak yaay ku bëggoon a sekk duñ fi jógee mhm. ngeen nekkaan Sorano daan bëggal nit ñi mhm. macha allah seeni i way am teggin lool am yor lool nga way fi da baax daf fi way bete bete daal fi way euh, set setal macha allah uh-huh. noo gisee euh, musique gu démb ak tey waaw xam nga musique gu démb nag euh, ak bu tey bi dañu am rek différence tuuti Mm-hmm. ndax ñun dañ nu daan wër di seet ñu woy a ah, di ko teg ci yoon comme ni ko xa xale yi def rek. Mm. waaye bu nu woyee yàlla mooy génne nit bàjjen. macha allah yàlla mooy génne nit yàlla mooy indi feeñ. Mm-hmm. yàlla ay siiwal doomu aadama. Mm-hmm. yow may dem di woy sax xamoo est-ce dina la siiwal wala déet. yàllaa koy def. loolu nag ñun dañ ko daan def ci. Euh, ñu woonu ñu génneel nu kaset mm-hmm. ñu génne kaset euh, nekk six titres mm-hmm. ñu way ci lu ñu ca war a way ñu fay nu mm-hmm. da am producteur producteur bi ñoo produire la nga way boo woyee moom bu dee am ay millions sa yoon nekku ci fay na la trois millions wala quatre millions yow si sa jëmmi bopp fay kii xalam fay kii kora fay kii musique fay guitariste fay ñëpp fay studio loola bu ko bu ko promoteur bi defee waroo xool lu mu cay am ak lu mu ci dul am. yow li ma la fay mooy sa wërsëg muy 4 millions wala 3 millions wala 1 million nga am ko génneel ko kaset bi. bu neexee. yàlla jàpp ci. mu jaay lu ëpp loolu. yow nag di nga ci am yow it. sa droit d'auteur. BSDA. Mm-hmm. léegi yow tamit di nga am. ñi nga woy muy ñi nga bëgg te woy leen ñu gëm Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu gëm Serigne Touba ñu bëgg la torop defal la ca nag lu ne mhm. dem ci màkk mhm. am ci ay kër mhm. am ci ay oto yow kon daanaka promoteur bi la produire ëppalewul la kon yàlla ba pare wóolu ko def ko rek sànni jàkku yàlla waaw loolu nag moo tax ah, woyi ah. ah man nag wax dëgg yàlla boobu ba léegi maa ngi toog rek ba ma woyee producteur daal ba mu jeexee laa pare uh-huh. <laughs> waaw maman xale yi léegi euh, artistes yu bari soo gisee dañoo jël way euh, def ko concurrence ah di gaaruwaalante di ci xuloo di ci def ko sudul noonu te yéen bi ñu seetloo seen i jamono macha allah comme li ma wax euh, léegi léegi su ma arriéraatee mm-hmm. sa way am teggin noonu am yar lool mm-hmm. ñu ciy jëriñoo mu daal di yiw waaye comme bete bete bi nga wayoon xaw ma ban année la ah, mm-hmm. xam naa boobu juddoo gu ma wala ma nekk xale. Euh, waaw mi ngi noonu. Mm-hmm. Euh, booba soo indiwaatee bete bete bi tey dafay mel ne. Mm-hmm. maman tey la way bi mu nekk bees lu xale di ko tiktok ah <laughs> macha allah. nga euh, loolu nga wax. Mm-hmm. way day des ci xol. day des ci xol day des ci doomu aadama yi. bete bete boobu. Faa Wade Wele bete bete. ma ziare bete bete. bete bete li ko jiitu bari na. dëgg la Eh, yàlla mooy taal woy mhm. ki ma ko woy sax dama koy mere yenn saay mhm. ndax du dem du dikk mhm. fa mu toog lay toog dëgg la su xew amee mu ne kaay mu yóbbu na utal gi <laughs> baadu waaw eh, waaye sama xarit la ndeysaan ma woy ko nag ba léegi woy wu dafa des bëngumaan yi dañuy taasu naan yaay gërëm yaay bété bété yow la aji jàll mbaay di woy waaw ñu naan kii woo ki xam ngeen ku nu woo kii nu woo mooy gërëm mooy bété bété yooyu yëpp day des ci xol day woy day des ci xol te man loolu wax dëgg yàlla ah yàgg naa ko def. Mm-hmm. Euh, yàgg naa ko woy. Mm-hmm. Euh, di digal bépp xale buy woy. Mm-hmm. mu dal rek te yàlla te ko. waa euh, comme li nga wax léegi léegi rek seen wayi démb suñ ko dégloo dafay mel ne tey la parce que dafay yeete waaye xale ñu ci bari tey da ngay gis ku daal di génne way même pas un mois way ba kaneen génnewaat ñu daal di sulu kooku kaneen génnewaat ñu daal di sulu kooku lan moo nekkoon seen secret ba seen wayi démb ba tey macha allah dañ koy déglu. moo tax mu metti mm-hmm. moo tax yi metti ndax olof dafa reen lu reen jam-jam. Mm-hmm. reen a nga ci suuf. xam nga ko bu olof. déedéet lu reen jam jam lu reen a nga. <laughs> loolu mooy leen maman yaa ngi woy nii am na ku nekk ci sa kaw bu accès rek nga nelaw. Mm-hmm. loolu day am mais ñun amul woon ci suñu jamono. Mm-hmm. ndax dañ ko tegoon ci teey. Mm-hmm. teg ko ci teg. teg ko ci loo xam ne dañuy def rek euh, di sànni jàkku yàlla. mun ci yàlla fekkee baax na. xam nga li ngay wax naan ay bete bete. ay am na woy boo xam ne daa mën sóor mhm. am teraanga am kilifa dëgg la boobu <laughs> xam nga maa ngi dem bu yàggul rek macha allah amagul semaine mhm. dëkk bu ñuy wax kër mbir ndaw mbir ndaw waaw kër mbir ndaw benn xale bu ma bëgg moo ma fa gis moo ma gisoon ci benn xew boobaak léegi juróomi at la ni ma dama laa bëgg ndeysaan tan jal mbaay yow rek laa bëgg di ma woo bàjjan kooku daf may woo ba ma am gàcc muy abdu abdu abdu Euh, Abdoulou. Mhm. ca kër mbir ndaw. yaayam mi ngi tudd Khady Faye. macha mhm. allah muy xale bu baax bu dëkk foofu. Mhm. waaye dafa ne ma damay ngénte. damay damay ñaan yàlla am jabar woo la. mu am soxna euh, defu ca dara daal. waaye mun ma ñaanal ma am doom. mun ma damaa dem ba Tiwaawan. dëgg la ndax taalibe Cheikh la. réew di sëñ Babacar si ndax maam Abdou moo ne woon lu may waaye di ñaan na jar ci sëñ Babacar si. ma ñaan fa ne ko mm, maam sëñ kër dama bëgg doom bu góor tuddee ko maam Abdou te moom moom tam mu wax ma loolu nag jabar ji am doom rek mu ni ma góor la. daa di may woo. ci ngénte la. billaahi xale bi keroog. moo tax nit lu muy def na yàlla rek tax. dëgg la. kër mbir ndaw ngénte la danoo ngénte yaay ja bagaas yaa nga tege yaay xale bi ñëw ak i valisam ay boîte oram ak yëfu ñu ne dañuy jaal jaal mbay day woy ba pare ñu doog a làng. Mhm. ma indi Babalaye si soxo Babalaye indil ma keneen ku ma aw ma ànd ak sama sët bu ñuy wax aji ant ku sob ñu ànd dem waaye affaire ba. Mhm. billahi dama mujj di jooy. ndeysaan. spectacle la. Mhm. dafa ma fàttali démb. ndeysaan loolu moo tax ñun suñuy woy. dañ koy teg ci yoon ba kenn du ci doyal. keroog alaaj daam laa fa tëgg. ak ger na ko muy Faba bi topp ci bu mag bi. Mm-hmm. bu ndaw bi. ak sa orchestre. ak sama euh, moom koy orchestre rek. Mm-hmm. parce que indi naa euh, xam nga ne boo ma ne way dëgg. Mm-hmm. benn tama sax boo ko yeewoo yóbbu woon. ak ay dëgg. boo ko yoree rek woy. <laughs> dëgg mën na woy ci benn tama. macha allah moo tax Babou Laye laay yóbbu moo remplacé clavier ba macha allah remplacé xalam bi. sabar ya tëgg xafa toj macha allah maman ah, am na solo loola. <laughs> maa ngi sant yàlla loolu di leen gërëm nag. Euh, waa kër Mbir Ndaw ndeysaan mère Feeling Badj maa ngi ñëw léegi léegi. <laughs> macha allah am na solo lool maman ah. mm. euh, lan moo tax euh, kenn gisatu leen lu bari Sorano te bu njëkk da ngeen daan tourner soraano lu baree bari. waa xam nga nag loolu. Mm-hmm. doon na loo xam ni ci man waa Sorano ñëpp sama mm-hmm. samay mbokk la ñoo fa nekk. Mm-hmm. ñii nga lim léegi. ndeysaan ñoo bokk ndey bay macha allah waaye euh, yàlla mooy def ci doomu aadama loo xam ni. Mm-hmm. lu ñuy lu ñuy tudd rek dañu leen a tuddaale. waaye Sorano mosuma fa liggéey. mosoo fa liggéey. mais dañu assemblée ah. <laughs> mosuma ci bokk. mais dañ la daan gis nga doon ànd ak ñoom di waaye Sorano. waaw xam nga bu fekkente ni yow da ngaa am sa orchestre. Mm-hmm. génn sa kaset. Mm-hmm. mu neex ngay joué société yi dañ lay jël. dëgg la bu ñu la jëlee jël Sorano fa ngay joué. buñ la jëlee jël mess officier fa ngay joué. Mhm. buñ la jëlee jël feneen fa ngay joué. Mhm. moo tax dama fa daan tëgg ay spectacle mhm. ba pare euh, Mame Less Thioune. Alaaji Mansour Mbaye mu baax mi. sama mag gi yal na yàlla guddal fanam. amiin amiin bàyyi ko fi. amiin dafa daan def guddi du guddi jàkkaarloo. di ko yooyu dañuy jël artistes yi. du waa assemblée rek. dañuy jël Youssou Ndour tey mhm. ñu jël Thione Seck yal na ko yàlla yërëm ndeysaan tey ñu jël keneen ak keneen mhm. daal ñu cay boole nag ñun artistes yi mhm. ñu ko kon acam mi ngi noonu macha allah leer na seetlu tamit euh, artistes yi ñu ci bari euh, ñemeetuñu Sorano hmm. ah. war nañ ko ñeme nag parce que euh, baas la Mm-hmm. dafa baax dafa baax ci woykat mm-hmm. Sorano ña fa nekk te liggéey fa mm-hmm. xam ne ñoom ñooy way di way di yi kenn dàqu leen a way waaw baax na ci artiste parce que di nga am imputation publicitaire di fayeeku ci ci ci administration bi ngay bokk Sorano dafa baax macha allah waaw man na ko dugg yàlla yàlla mu ma génne rek loolu ñu naan entreprise <laughs> <laughs> ma samp sama orchestre. Uh-huh. nekk entreprise. Uh-huh. ma boot ay nit nag. Uh-huh. boot sama staff. ñu nekk ak man may joué ji fu nekk nag. fu nekk Sénégal Europe. macha allah ak Afrique. Amérique. macha allah. macha allah fu ne dem naa fa. macha allah fu ne dem naa fa ak samay woy. ensemble instrumental dañ daan dem fu ne ñoom. mu ñoom xar mi ma jàng mag. jëm sa classe yàlla yàlla ko yàlla yërëm. ndeysaan amiin ñoom Fatou Thiam Fambé Issa Diop ñëpp a ngi woon Sorano. ndeysaan Ndiaga Mbaye ñoom ñoom ñoom Ablaye Naar Samb ñii. dëgg la ñëpp woon Sorano. Mhm. loolu nag bu amee a ah, yàlla moo leen fa yóbbu. Mhm. teg leen fa ba nu retraité. Mhm. am na ci ñu retraité. ba léegi nii am na ci ñu retraité. waaw. wax yàlla waaye daal. Mhm. liggéey fa wàññiwul dara. macha allah maman liggéey moom baax na lool. <laughs> kon aja nañ dem liggéey Sorano bu baax a baax. Uh-huh. maman sa diggante ak uh, maman Kiné Lam. ndax uh, woyam yu bari eh, dégg nañ ci sa voix. ci kër lu doy waar ba ci am na clipam boo xam ne sax yaa ngi ci. Uh-huh. macha allah ñu bëgg na xam seen diggante. Uh-huh, Kiné Lam. Mm-hmm. sama doom la. mag yaayam sunu ñaari yaay bokk ndey ak baay. Mm-hmm. waaw man ak ndeyam ji ma Kiné Lam ndeyam bokk ndey ak baay. macha nag. dëgg la ñu ndeyale ma ko. avant ñu ma koy ndeyale yàlla njëkk def bokk gi ba pare. ba pare muy sama doom nag. respecté ma. jox ma cër. xam ma may kan. macha allah clip boobu muy balay sa guri moom laa ko mos a aw ci kaset. balay sa buri Serigne Mbacke Maraw. <laughs> bokk ci clip ba. Uh-huh. yàlla def euh, woy ñëw ma dem bokk ci super ndaje rek daal di génn producteur yi gis ma produire ma. Uh-huh. ma daal di woy ba tey ñu ànd. yu uh-huh. muy def. daf ma cay boole moom Kiné Lam. waaw Kiné Lam Kiné Lam nekkagul ci benn chaîne. nekk fa moom dong te te te dirige chaîne ba te duma ca bokk. macha allah ah, may ndeyam mu xam ne it may ndeyam nag. dëgg la dëgg yàlla. yàlla ko yàlla may jàmm. ak bépp jullit. allah li may wax rek ah Sénégal di ko wax euh, bi ma ñëwee euh, macha allah nga nekk ku baax ku bëgg Seydina Muhammad waaye nekk taalibe Cheikh macha allah. Euh, ndeysaan nem si yàlla si Ndongo Lo yàlla ko yàlla yërëm xaare ko aljana bi may gën a nekk xale. Mm. maa ngi dégg muy way xaw ma diwo la woon xaw ma daal kaset waaw diwo la woon ah. yéen ñaar après mu lay dugal mm. di la way ci waa Tiwaawan naan suñu yaay Jaal Mbaay ak bëgg sëriñ Babacar Ababacar <laughs> ah, Mbaye Sadikh mbir fi liñ pàcc wallaay waaw loolu <laughs> loolu xam nga lu yàgg la ndeysaan yàgg na yàggul mm-hmm. parce que ravin bi la doon jugé ravin la woon ndongo ku baax la yal na ko yàlla yërëm jéggal ko amiin ba faal gaynde wàlla googu muy wax mm-hmm. sama géer la jeyna ba faal maa ko jëkka way kaset mu teral ma fekk ma Sorano fekk mu benn guddi guddi Mame les Thioune la woon. mu ñëw Sorano fekk ma fa may ma fa millions yu bari. ndeysaan ba léegi. léegi nag ndongo dafa nekkoon ci moom ma ñëw egg si rek man ma tànjal mbay yow sa kër laa doon jëm. damay def benn euh, émission fële ca Réveil dama fay tëgg benn soirée bu mag. Mhm. bëgg nga ñëw jàppale ma ci. ci kër Jeena ba Fall ma ko waxee. Mhm. ma dem jàppal ko ci. nangaloo yàlla xam na ne loolu indi woy wu riis woowu. woy la waa képp ku lay woy rek da lay dàqantale waa Tiwaawan. woy la ci taalibi Cheikh. loolu ku ma ko defulu sax dama lay bàyyi àddina ak àllaaxira. déggal. yaa <laughs> ilaha illallah. ku wax ci man te tuddoo Tiwaawan. Mhm. bàyyi naa la. Mhm. bàyyi naa la ba yow. ndax dañu naan maman Diall Mbaye bu. Ababacar Sy mama Dial Mbaye bu ma maam Maodo. Euh, macha allah euh, gëm li mu doon bëgg li mu doon. waaye li mu doon ragalu ko benn yoon fonk tarixam macha allah. loolu laay dégg ci nit ñu koy wax chaque jour. mooy yoon. Uh-huh. man Tiwaawan laa juddoo kër baay. Uh-huh. ma juddoo. Uh-huh. ak Seydi Hadji Malick gi ci teen miir dox seen diggante. macha allah la woon nag du la woon dafa nekkoon sàkket. la moo tax kër moom Moussa kër ma Abdou Aziz mhm. kër ma Moussa Ale kër xalifa bi Serigne Bay Mansour sunu sang boobu maa ngi koy ñaanal mhm. di ko ziar bu baax mhm. déwéne Tiwaa Tiwaawan gépp nag di balu àq ñëpp di ñaan yàlla ndogu li neex loolu nag macha allah <laughs> yàlla ndogu li neex yàlla na dàq daaw yàlla na ko déwén barke yonent bi nu fekkee ko tatal ko amiin maa ngi ziar képp kuy taalibi Cheikh amiin Cheikh Mat Tidiane servir di waan. macha allah macha allah Seydi Hadji Malick. macha allah sa yaay sa yaay ku baax la. sama <laughs> uh-huh. sa maa bëgg taxamuma. ndeysaan dafa maa bëgg mm-hmm. xam na ko. bokk seen taalibe macha allah. maman gëj nañ la gis fan si na mat nañ la. li ma mm-hmm. wax sànq rek mère Feeling Patch ah mm-hmm. soo woyee tey rek xale yi daal di kontaan suñu dégloo sa way démb tamit daal di gën a kontaan macha allah lan ngay wax sa fan si ak lan ngay préparé maman danga war a ñëwaat de <laughs> ah waaw. waaw man daal maa fi rek man daal euh, euh, nii ma def bërki démb daal. Mhm. di ko def nag ci xew yi sax. Mhm. ah ku ma ko def loo ma jéem ko rek. dëgg la xam nga itam euh, bàjjen. Mhm. jël sa xaalis li nga am. dem dugg studio fayal sa bopp fay xalamkat yëpp fay tëggkat yëpp fay ñëpp. yor say kaset def ko ci oto di wër mënuma ko. kon ko nar def. jënd ko ay ganaar ak xar. jënd ko ay ganaar ak xar. jël ci or bi ma ñu lekk kon <laughs> ci li ma takk jox ko sama waa kër jox ko sama njaboot jox ko ku ci yàlla boole. Mhm. ma teral la ca. Mhm. waaye bu reer doon doy reer daaw yo doy. léegi producteur su ñëwaatee nag. waa xanaa producteur waaw moom bu ñëwee bu soobee yàlla ba dama maa la fay lii. Ah. loo ma fay sax man la ayca. da ngaa war a ñëwaat de maman. ma leen. ñun moom say ah maa ngi woo producteurs yi. wool ma <laughs> waaw kay daal di liggéey ak sama yaay ji macha <laughs> allah. bareetul léegi de ah? Ah, non non dinañ ñëw ndax ku déglu sa way rek daal di kontaan macha allah li ma wax sànq say way dafay yeete di jàngale am yar lool am teggin lool macha allah ah, ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax yàlla bàyyi la fi guddal sa fan nga dund dund ba sët yi di la yóbbu màkka nga ziyaar gi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh Tidiane Serif ci barke Babacar Si Sidi El Hadji Malick Si waaw bàjjen euh, <laughs> uh-huh. euh, maa ngi ciy gërëm tamit wax dëgg uh-huh. yàlla Euh, président de la république. Mm-hmm. ndax gémmiñ waxul dëgg. Mm-hmm. fen lay wax. Mm-hmm. maa ngi ko ci ñaan yàlla ak soxnaam. président ndax ñun woy nañu ba toog. dëgg la waaye ku lay fàttaliku te boole li ci réew mi. kooku jar naa sant. di ci sant yi di Youssou Ndour. ndax ki fendana bi rek. Mara Dieng ma. ni ma Youssou moom a yóbbante ci yow. ndeysaan daf lay jox sa fendane. ndeysaan loolu nag dafa rëy. macha allah man ku ma defal lu baax dama koy wax. dëgg la te man damay man man yàllaa ma ci jàppale yàllaa ma sóoraale. Mm-hmm. moo tax nit ñi sóoraale ma. Mm-hmm. man sóoraale wu ma sama bopp. Mm-hmm. damaa defee ne kenn boolewu ma ci. ah Youssou yaayam nga yaayam waaw yaayam laa. <laughs> waaye nag euh, dafa am loo xam ne bu amee. da nga koy sant borom ba te teraanga bu nekk dafa may fekk ci sama kër gi macha ba barki dem sama dooma ci mujj. koor gi dafa dañ ni cëpp koor gi rek. mu ñëwaat. ñëpp a koy def nag su ma limee kenn rek. damay tooñ. waaye ñëpp a ko ñu koy ñaanal ma leen di ñaanal nag. yal na nu yokk. amiin amiin yal na nu yokk. ku lay teral. Mm-hmm. yal na yàlla yokk teraangaam. amiin ku teral. yàlla na yàlla yokk teraangam ba mu boole la ca ñamuy teral. amiin maman barke Sidina Mohamed. amiin maman macha allah avant may tëj rek bi ma ñëwee ci kër gi gis naa fi photo sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. waaw daal fii gis photo maam Babacar si gis fi photo Sidi El Hadji Malick Sy ah maam macha allah sa lépp rek di taalibe Cheikh ci kër gi. waaw. Euh, bàjjen. Mm-hmm. nit day ñeme péete péete da nga koy ñeme. Mm-hmm. boo féeteeg nag kii rek. Mm-hmm. xaalis bi. Mm. dootoo xool kenn. dëgg la neex ngay def. dëgg sañu ma ko dama am kilifa. te samay nga tiwaawan. gis nga dama leen a gëm tëbalewuma ko ak dara. xam nga ñëpp la yàlla ku yàlla wàcc ci réew mi teral na la Seydi Hadji Malick ngi fi Serigne Touba ngi fi Limaamu Laay tariqa yëpp ngi fi waaye damaa am péete muy kër Seydi Hadji Malick mooy sama péete àdduna ak àllaaxira ñoom rek laa xam ñoom rek laa bëgg ñooñu rek ngay fekk fii ñooñu rek boo féetewul nag da ngay doon baadoo ku la couleur yomb da nga féréwli xam nga loolu ñu naan féréwli mhm. da ngay yombal féréwli couleur yomb rëbb la mbaadu <laughs> ku la may téeméeri junni rek nga ànd mhm. moom dem nga ànd def ma loolu xooloo xaalis xooloo dara man dara jëy yonent bi benn fiftun Seydi Aji Malick moom a gën a lépp ndeysaan xam nañ loolu bu baax a baax suñu yaay Dial Mbaye mm-hmm. yal yàlla guddal sa fan bàyyi la fi ñu ngi kontaan bu baax a baax ah lekk nañ ba suur comme li ma waxoon sànq rek mm-hmm. ak <laughs> man moom <laughs> sant bi ma ah, ba maa waaye jàmm ji ak salaam yi dafa neex di sant bu baax a baax ki tax ma ñëw fii tey ci kër gi muy sa doom maam Ousmane ñu ah, yàgg waaw man ak moom mu baax lool ñàkk ñaar di ma nemmeeku bëgg ma lool kontaan nañ bu baax a baax dama lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo moom ah. waaw jërëjëf jërëjëf bàjjen kontaan naa <laughs> uh-huh. am Ousmane moom moo mag papa ma bokk ndey ak baay. Mhm. maa ko jur di bàjjenu yaayam boole ci. Mhm. ñun ay bokk lañu ay géwél lañu ay xeet. macha ngi ñaan yàlla bu baax nag seen mhm. télé bi di seen Sénégal 7 waaye Sénégal 7 bi yàlla na set wecc amiin yàlla na dem fépp yàlla borom gudd fan may ko ba ndax suñu doom la waaw suñu doom la ñun ñoo ko jur nga njaay ñun ñoo ko jur bu te ñoo bokk ngéwél gi bokk ngawlo gi bokk lépp yàlla na ko yàlla may jàmm. Mhm. xam nga ku lay teral te laajoo ko ko wëri woo ko xamoo këram kooku jar naa sant trop. dëgg la moom te Pape Ngagne mii daf ci bokk ci ñooñu. ndeysaan fu ma fekk. Mhm. barke Nabil Moustapha daf may teral. macha allah yàlla xam na ko du ko sax jege nag. ndeysaan waaye day jékki-jékki ne eh wal ma wal ma bàjjen ma gëstu ko mu doon jox xale ko demal joxal ma ko. jikkoom la waaye nit bu la defee lu baax wax ko. jikkoom la maa ngi sant yàlla nag. dem ma ci kër kenn xaw ma këram de ndeysaan billaay xaw ma kër Pape Ngagne Ndiaye rawal rawal waaw waaye nag daf maa defal lu baax mhm. yàlla xam na ko jërëjëf macha allah jërëjëf loolu rek laay tàggoo ñaan yàlla def ci réew mi jàmm amiin defal ko borom réew mi defal ko première dame moomu àndal mhm. defal ko bépp gouvernement mhm. fépp ci àdduna yal na fi yàlla wàcce jàmm sëmbërtal fi jàmm ñëpp am jàmm yal na ñëpp am jàmm barke yonent bi salaa sa goro yu baax yi ak sa doom yu baax yi bi ñëwee booba léegi ñu ngi kaf ak ñun di foow ak ñun ah may ñu jàmm ak salaam jàmm dafa neex moment rawatina nga ñëw kër nit ci ngay xamee jikkoom ah si suñu ñu fàllu sama caméraman bu ñaawal bi ah, mu naa sama xarit sama doom day ah ak suñu safar bi machamba macha allah hmm. lekk hmm. bi nga xamante ne nii dafa baax lool ci man ah, jaañ Naar borom yaaju riche ji boroom ñàmbur moo ma génne fii ci jàllaa bi ma ma ne ku sol prêt à mu baax loolu heure bu ma demee rek dama may ñëwal ba mu baax ne ma bàjjan am bul fay dara kaar macha allah Ameth Diagne loo dund rek doyul kenn du yow ci man maa ngi jox rendez-vous à la prochaine fois ak kaneen jaa ngeen jëf.